xibaar yu wér te wóor ca tàng tàng ba abonnez pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd beeg Buzz 221 di la wax itam nga daal di abonné waaye itam activer cloche de notification bi pour vidéo bu ñu dugal rek ngeen mën cee jot. xibaar yi la ca gën a fees ki nga xam ne moom moo di njiit réew mu Sénégal niki démb daal dinay dem foofee ci diwaanu Touba fekki fa ki nga xam ne moom moo di xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Al Bachir ci noonu itam moom euh, kilifa kër réew mi na ki nga xam ne moom moo di première dame di soxnaam ci noonu itam daal dinay ànd ak lenn ci ay ministre ñu gën cee ràññee ki nga xam ne nag moom moo di El Malick Ndiaye dem foofee Eh, ca diwaanu Touba ngir def li nga xam ne nag moom moo di ziar ngir màggal gi nga xam ne nag moom la ñu daal di jëm muy eh, cent trentième édition boo xam ne nag nar nañu ko amal fii ci diwaanu Touba ba tax na moom kilifa kër réew mi daal di lay wax ak ki nga xam ne nag moom moo di xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Al Bachir wax ko ci jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi koy daal di am fii ci diwaanu Touba rawatina li nga xam ne nag moom moo di ndox mi waaye itam fii ak fan moom dana daal di tàmbali. li nga xam ne nag moom moo di liggéey bi loolee rek la daal di xamal ki nga xam ne moom moo di xalifa général des mourides waaye itam wax ci li nga xam ne nag moom di dem bekk dikk bi ngir ñiy ñëw def ndànk ngir mën a dem ci jàmm mu dikkaat ci jàmm